ndam yo seereer radio yaman i cooxanuuna kiima mayu na seereer fo jeetaay la jegna solo no ka xotna no aada fa cosaan seereer ndet yo no mbinne in refna www seereer radio point com pare yo pour nangiloox programme ke in no radio sénégambian sereer radio fena yara nuun to a jalnora nuun genat am sereer radio ɗafi haydu kome taptiɗof peɗem tidu moslikero longsoraki eto intiriɗa sohna wasko saafi na fase saafi na aada saafin manje asat ɗum marak fahin ɗafi ngan www point sereer radio point com te ɗum sek haɓɗa cin radio sénégambia wi fu inane wa jangɗo he te woƴenɗo he Restez branchés sur Serer Radio. Nous vous offrons un mélange de musique Serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle Serer, l'histoire Serer et la culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of Serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community.
aye jogoy nanum tiiɗa Aye, njogoy nanum dida.
mi aye jogoy nanum tiiɗa Aye, njogoy nanum dida.
tata gina ngenoxe isa salingoloxum commune ne to yakare aye jogoy nanum tiiɗa Vous avez demandé de la musique Serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique Serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire Serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio pour vous éduquer et vous divertir.
regi mixo he fina ngana we damji woni ko ina sohna fin safi me julli o Julli gam o.
ko caɗa voilà waxtu ciɓa ɓe julli Julli in o.
ciɓa me wo uh-huh. oh What- uh, uh, the next question is about Serer.
about the prayers how serer used to to pray and what time they used to do it and how they was doing it and what they was saying wa- julli ci diine ci àddina yépp lu muy firi mooy ñaan yàlla ñaan pour sa soxla faju mooy ñaan julli loolu lay firi ci arab et tubaab ak yooyu yëpp loolu Euh, julli nag dafa ànd ak geste diine bu ne dafa am buy julli geste yi muy def am ni muy julli Euh, séeréer bi nay julli waa du julli séeréer du jaamu yàlla pour adorer un dieu non jaamul yàlla mais dafa am problème bu mu bëgg faj mu dootu ci motu pangool yi maam yi mu taxaw ci seen wet waaye buy laaj yàlla lay ñaan yow yàlla roog seen wala koppe caac waaye nag bu dee ci bu laa ñaan day wax ci barke Samba Demba Yoro euh, Paate euh, Gayki ma maamam yi nga xam ñoo ko jiitu ndax ne maam yi ñoo ne diggante moom ak yàlla ñoo ko sos ñooñu lay wax et la muy ñaan mooy li ca gën a bari mooy wàllu ndox gis nga kii ñaan la mais ñaan bi lu mu ñaan dafay ñaan dafay julli pour que euh, dugub yi bu toll ne fii pe fe fa fe focc Si- wala bu toll ne fii waaw bu ci toll ne dënnam.
ci dànn bi fecc foñ wala bu toll ne ci bopp bi mu euh, focc loolu mooy ñaan yàlla lii mooy soxlam mu ne yàlla ànd defal ma ne mu ànd ak ay objet ak geste rituel ki ki mag ñi ñooy woon kii ni wut benn ga ñax bi ñu wax nga- ngaawal dafay law moom la ñu def comme mbege ñu yëkkati fu ñu ko fixé rek dugub foofu lay toll mu mu ñor mu am doom fecc waaw lay doon doom ci ñoom euh, sévère aussi euh, day ñaan fekkee ñu ngi bay ñaan jowar jiw dugub sa lekket bi ku ko yenu ku jigéen ku mos a am doom ku mën a am doom bu ko yenoo du wax ak kenn bu ñëwee ba ci diggu tool bi war a teg kii bi fii balaa mu koy teg fekk borom kër gi moo ridde tool bi nii bu ko riddee nii léegi mu def loolu ñu gisoon ci lël les quatre points cardinaux bu dee yàlla day je toog fii yàpp fii ak fii ak mu ñeent ak ci digg bi bi ci digg bi nag mooy secret bi nga xam moo yore tool bi moom kii bu ñëwee mooy kii kii ko sa sa mooy def jiw def dugub mu wax xale yu ndaw yi nañ ko suul ak seen taat def nii di ko suul ñu ne lu tax ñu ne xale yàlla moo ko bind yàlla fonk ko xale feek mu ngi dundal dina lekk te feek mu ngi lekk dina puub bon nag ñu ngi ñaan yàlla dugub ji na doon dugub ju bari ba nit ñi di lekk di puub moo tax ñu koy suulee te alors yéen a quatre points cardinaux mu ngi nii ci bu ñu bu ñu bëggee picc du lekk dugub bi njeleer du ko lekk sax du ko lekk wala socet fii la ñuy def xam-xam boobu dara du ko mën a yàq dara du ko yàq bu mu jëriñoo ko boobu mooy julle moom li ko itteel moom lay julle ci moom sévère dugub ji bu demee ba ñor balaa mu ciy def dara asi dafay ñaan julli de tonlo mais position julli séeréer position julli séeréer bu fekkee mu ngi ñaan yàlla nii lay tooge nii lay tooge jonkoon jonkon waaw benn mu wàccee benn woomam bi yëkkati benn bi moom lay doon bu fekkee ne moom ki kii lekketu jiw bi la jiw bi nii lañ ko def la bu fekkee portion bi nga xam ne moom la séeréer jox jël jël sukk càmmoñ kii bi lañ dem ni moo si wow waaw ba beneen bi waaw beneen kii bi la beneen bi ko moo foo seetee ci Égypte pharaonique portion yi ñu def ci julli yëpp ci Égypte noonu lay def pour portion portion bi julli la comme ni ko séeréer di kii muy niil beneen Waaw, voilà.
tànka lef lef lef lef liyam bi mi niil Waaw.
beneen right nii bi Voilà.
mi tuhin alors non toujours que Benn.
dañuy samp woom bi bii ñu yëkkati ko alors loolu la séeréer gis nga la portion de pharaon di kii waaw foofu mu ngi yëkkati woom bi kii bi bu ndeejoor waaw bu bu càmmoñ bi Càmmoñ.
mu samp leen ak liñ ko interprété euh, Osiris bi koy seddi rey dafa dagg benn tànk bi il a amputé son euh, kii pied euh, droite mu des ak pied gauche bi mu koy kii et même boo demee ci séeréer bu dëj amee dëju cosaan bu ñu fecc ne la ñu da def ñu kaw da ne mu nu doon nu ñu dagg tànk muy xeex ak yi ñu def ah, tànk boobu moom def ci doon folat ñu tudde ko fol folat folat c'est-à-dire sot sotte falat folat folat oui, folat mooy euh, di tëb di tëb di daal parce que nee na kale bañ koy rey dañu dagg tànk ndeyjoor bu dese tànk càmmoñ bi muy tëb di xeex ak kale ba mu jëkkali ko daggal ko mors set ah waaw loolu too la kon nag léegi bu ñu portion yi ci gis yëpp daal moo eh, nii lay dee dañuy sukk tànk bi bii ñu yëkkati ko Euh, ci noonu itam ci séeréer euh, bu ñuy kii ci séeréer bi aussi prière la pour fermeture de de l'ère culturelle kii dañuy yel benn ganaar def ko ci benn ga- di watat wat ko mu war dëkk bi buñ ko waree fi nga xam mooy tool yi ñuy béy tool yooyu euh, ñaan nañu yàlla dara mënu ko yàq boobu la quoi bonne prière séeréer euh, de séeréer prière circonstancielle c'est que amul heure fixée à venir mais am na jamono boo xam ne euh, bëgg nañ ci julli euh, ñaan mais am na yoo xam ne duñ am na bés yoo xam comme ajjuma ñoom de sawaruñ daal du ci ñaan duñ ko ñaan ñaareel mais ajjuma dafa diis euh, am na guddi it ñoom bu dul lu garaaw lool lool lool ñoom duñ ci ñaan euh, duñ ko dem ci pangol yi di ñaan yuñ ci daal boori yoor yoor daal bu demee ba yoor yoor boor boobu lañ ciy gën di dem war nañ ciy dem ci ngoon mais toujours pangol bi il faut que mu nekk ci wetu garab bi fi nekk wuta garab euh, fi lañ ko euh, defee loolu ci wetu garab foog mu nekk ci wetu garab alors loolu ci joom jëm julli seerang lañ joor rooga yàlla inseen wo ref maado maaɓe xu dodox na wo dodun xo jeg na wo cu'un xu ñak na wo xañun wo sak adna wo sak fop wo sak long bo toog in way ngadame mbuyam jam kana ɓesaɗanatanga a ɓesida kaaf mayu bo in mbaga ñaam fo jam in fo ɓasilen amin Euh, bari na lool euh, ci jolle yee mooy de de ñaan daal yàlla may leen li ñuy dund yàlla may leen jàmm o gada ba bu ñu naan nag rok eh, kaaf ga nuuna lay voici votre manger foofu la nuuna lay voici votre eau boo maaka ñaama a gugu jaano avant qu'un qu'un vieillard mange et rince sa bouche soxna wax leen nu na lay voici le son de vos chiens parce que chien est un compagnon fidèle il faut faut pas l'oublier in way ngadam men roog o ci'in jam o ciɗanel ci'in jam ci'inel jam o ci'in kaaf mayu ndiig mosofu kaaf mayu bo lenga waagnene dara ala kooku maa ngi ci yor li ma téeméer téeméeri prière séeréer fii transcrire naa ko ba pare dafa am sama bay xat boo xam nga amoon tuuti war naa ko dem bu ma demee waxtaan moom mu korisel ma parce que kooku ku dëgg xam ñu fii la korisel ma ñu seet ne fekkee ne am nañu situation rek ci état bi alors ma yëpp dinaa ko génne à la fois. waaw ci loolu la ñuy téeméer daal ak du topp ci prière serré surtout les circonstances ku dee nañ lay julle koo xam ne da nga bëgg ndox nañ lay julle koo xam nañ lay ñax ku dee nañ lay ñaanale ku bëgg ndox nañ lay ñaanaloo yëpp alors yëpp mu ngi fi. ñaan koo xam ku feebar pour mu wér ak koo xam ne yooyu yëpp mu ngi ci moom dem naa téeméer ak nangam yoo xam mu ngi fii tàppe naa ko ba pare des nag léegi affaire technique loolu waaw jërëjëf kon nag ba jox la nga dama bëgg nga am translé loolu si saafi baati saafi No. waaw ini yakkore woy since war sohna julli saafi finde amit julli of wara sohna saafi finde amit julli of finde saafi mit kiimox ko waaw legi saafi comme findi findi c'est le couche contrôle j'ai un texte sur ça aussi comme findi Waaw.
julli na tumo sen yenen yenen yenen wasin ko yenen dine si Waaw.
saafi tumo huwoɗa bo Saafi.
sarri akime ko e saafi a kiime ko akime ko da ra besna e a kiime ko ra rak ini hew walla rak ini awa rak soxlaane a waa Ah, il waaw.
faut nga waa masu wala waa jam wala waa wi we tening de eeyi ine mbatta Ah, wettaade ko.
ɓeno tahe po saabi hayla a- a- a- a kiimi ko mais a tumuwo comme fi Ɗum ndi tan dine so cici- ɓe dine gaɗa cicciɗnoji
la i day waaj dem jiwi lagi wi raɓi ina gahane donc ɓa- ɓa- ɓa kiime ɓa kiime raki kiimi fina gahane ate ɓi ɓowog ndi ne ɓoyi anik eh, tohoji caka poco yakeɗa raki kiimi fina gahane ɓa ɓa tumba woɗa tohoji caka ta poco tolu san diski Dinaan ba nabda, dinaan ba nabda, ndik yuɓ.
onik yuɓɗa waaw Ndik dari, tohro toppandamo tohro wiɗi.
tappandamo o wiɗis wiɗis.
waaw legi raki kimci fina gahane ceme en nik findi ɓa tume poɓa añ intiman na jerer walla intiman na nan ɗo peti fina gahane ce ñaman ñam tohoci walla arenci intiman na selcine cem no cangin Le dépravé, no.
legi legi raki kimci fina gahane tamit ɓanaman cuttum bala ɓa ña- bala ɓa ñame tohoci ɓa aɗu goɗɗa waaw léegi fi ndi ba may tuf ko nga julli tuf ko haade bo man na ca fi ndi égyptien ci mejo mejo Meɗe tuma tuf ko ko yaa ɗo.
mejo tuf ko waaw parce que ba mi meƴe kot ba mi meƴe yondu yokkode Lekkoɗe.
se yahñam Eh.
ko meɓe kot yahtine waaw ba may ba may tuma hoɗe léegi inem nak donc wa andunu nekke o ɓayi hu ngan ngan osiris osiris Osiris.
wa setne an wa affaire waset ngona apede a Mhm.
ngut a ngutta a ngutta kot a ngutta koting de Mhm.
léegi wetta woti woti saafi a kandaɗa ruy Ba mbecceɗa.
ruy cosan ɓa becca Ba gonge gonga ko diino. Jongalu gonge yeytere ko donc diino.
in cemtitude moon ca ca pulo ngan ngan ngan histoire en égypte égypte wini léegi euh, rakif ina ngahaane wo wo wo- wo kim pour pour pour kañam kañam aha Eh, laki fina ngano nam kim pour kanyam lagi faski ba met kim hona laki fina ngana a jote bo way bat fina ngan ce ba me wonga wanika wanika kanyam king da wedi ko sen kanyam king da wedi ase kañam ki ko ha e ko edule me e caacun eh ki eh caacun ki ɓe edu Ɓe ko edu.
kañam ki aha caacun e samba demba yoro Samba- ca kañam king du wedi eh eh wa mas ping du wedi Uh-huh.
ngangi ping du wedi Uh-huh.
bola yakang na ñamela a huccu alors jem e e le le défunt les morts des défunts des ancêtres défunts Beyne et Essai, euh, sont les destinataires de l'offrande mais quand ils prient ils demandent Dieu donne-nous Eh, yalla jox ñu ko ela def waaye in ci waxee doxe boo ne day caajun ca ca waaw so ay ay a- a- a lerde ne ke in ci fina ngana ce bana sarho he be elu ce ko Uh-huh.
be be dan caaju cing ba ce parce que ba amne caaju cing ba be ni digante be na ko lagi be dan caaju ci ba han kim ko ina ba Mhm.
parce que ba am na ka caaju ci benn yobde yobde yobde yobde kiimem donc comme kiimem raaki bàcc fe ngaani a jotu caw woni ka woni ka demba
yoro demba yoro samba caajun ci rek Eh, demba Ki de yoro samba na caaju ci caajun ca, foofu akin ñaanoo ko.
caaju ci ba jotɗa léegi a wayne kañam king du weɗi mas ɓing du weɗi wedi so mbox min ɓuufin ɗo so mbox min mbuufing du weɗi bola yakak ñamanda a bala yahat ko ñamanɗa a huccuk pucuk waaw
ƴettaɗa ba han bola ne ko ko ona ɗaɗi kimɗa mahu fi kimɗa masu ona nafi ma ona ɗafi masu masɓi ka kwa gañ pa gañja ɗone ko ɗakki meɗa masu ini on ɗafi o uɓɗi o ƴi suuɗɗi way hawsira ɗafi o ƴi suuɗ Yeah.
wattuma sab sab sab sab watto siite ok so fini du karo donc ina me in fi nanka ana we ni ke we ni ke kimi ay tamit ay nam hamal naka araki ini mat eh, kim kim ha temet ci fi nanga ni cadi ndi habde ci pojuti ay tas eh, ca ca ca ina mu ca jaxsinu duda amarak findi ahetu me pobu ci bobu ci to jot nga ni kane baraki subvention ni fi nanga hane ndimbali fi nanga ana polo hen nguri wala polo mbonno min kinikta ah Ah, tam nga ne
ci dama bëgg a dugg si sin ene ci siin yes waaw si sin um, sin si boppam aha sa njëkk a njëkk ba aha naka la naka la tuddoon sin si la nga si xam
Euh, siin euh, tur bi ma ci xam daal mooy siin Euh, ndax siin bi am na ñu wax ne siinaay lañ ko dëkkantale ndax séeréer ne foofu la ñu jóge ñoo ne de siin Euh, siin boo demee dëkk séeréer yi am na dëkk yu bari tudd siin siin bii rek dafa garaaw si siin bii nag in ko sa day na siin lok yaaya fii sinig ne bantu yaay yaay garab la waaye lañ ci jubloo siin euh, neegu ndey la siin neegu ndey la ñëw ci wàllu jigéen lañ ko moom Euh, siin am na dëkk yu bari yoo xam ne yu ko ko u mel ni jaxaaw u mel ni puxaam u mel ni saas mel ni ñaaxar u mel ni ñaaxar sax ci dëkk yi gën a yàgg ci siin ci la bokk ci siin alors dëkk yooyu yëpp ci siin la aju mais siin bi boobu mel ni euh, duudam mel ni euh, mel ni duudam mel ni dëkk dëkk bi nu mu dottiti du duudam boo xam ne euh, euh, duudam ah xel bi daa génne na ci yooyu yëpp ay dëkk yu ne ci siin la euh, dëkk yoo xam ne nekk si dëkk yu cosaan la ñu woon Euh, dem na fii tey nu mu tuddati njongoloor Euh, njongoloor ci dëkk yu ma mag yi ci siin la Euh, lagandeem yooyu yooyu yëpp ay dëkk yu nekkoon ci siin mais capital bi nag nangul ko ba jaxaaw rek la ñuy gën a xam mais yooyu ay dëkk yu bari la woon waaw.
Um, kon ci kon ma dama bëgg a jekkali après naa jox suma ko suma xarit bi waaw.
mu translate ko Ah.
kon nag naa bëgg naa dugg Ah.
ci leneen nag Ah.
mooy tur yi tur yi cosaani si sin tur tur yi di jaw am dëkk yi nga tudde nii dama bëgg a xam mooy kan moo leen seen kan moo leen sàncoon Ah.
ak seen tur ak lan lañ tekki seen tur bu ñu leen dégtal di xeen di jaabantale ndax lan la tekki si baati séeréer ba saafi waaw waaw fii ne ci ci sama xam ci wàllu laaj recherche waaw Euh, dëkk yàgg na yàgg boo xam ne wax ne diw moo ko sanc euh, lu jafe la waaye foog naa fekkee am nga liibaru cosaan wala ab pangool nga seet siin dinañ wax du dëkk yu bari nan la mais du yëpp moom alors boo dee saas am na dëkk yu am saas comme fii professeur Madior Diouf dëkk saas mooy kadd saas mooy kadd pour la professeur Madior dëkk ñaaxar ñaax mooy fii amul ñax fii amul ñax xaaxam mooy xaaxam moom day takk jigéen ne fii ñaaxar fii amul ña- ñax Euh, amul ñax ñax bu xam ne booy day takkate ko façon ñax loolu noo ñaaxar ñu ne loolu lay firi Euh, dem euh, duudam euh, duudam mais fu ñu wann ke duudam wa wa duudam mooy wann ma wann wetoowu boof boof dëkk ñoo xam ñu fees bopp ñoo fa ne boof boof dina firi ñaare dina firi nen mais dina firi aussi toog toog toog waaw allo yooyu dëkk yoo xam ne yu yàgg la ci siin yooyu la tey ay borom xam-xam yu mag ñoo fi dëkkoon waaw Euh, Fatick aussi euh, grave la lii wax na ko firi na turu Fatick ci dëkk yu bari la bokkoonu lo loolu yooyu daal la ci bari na lool dëkku siin yi nit mënu ko lim yëpp di la aha kon da da bëggoon nga firil ma loolu si baati séeréer saa saa waaw ini awoy sin cingang sa parce que mek sohe wara sohena sin tiking sin uh, wo wo- ndah wara kara tik wiris sin kochana legi ay awoy ne ke o alip ini wara ke tik mm, kochana parce que sin a amne ko pulo sinay ngin ci fina ngane a, a sax suke cha o pulo sinay parce que ba amne ko safi ci wala serer ci ba ne ken gang sinay wi ba haye ba ba bay ndox yo ɓaɓay dof ceekem gis sinna wara waraki pour laayin mais bo woti ɓuɓci ambi nek a jahaw weɗ weɗ leernan o weɗ leerna weɗ leernan sin mais waraki pour laayi ciman no jongolor ciman no jahaw kurci man na ñaha ɗuɗam foɓe fatik cen tuuɗu man caɓa gan gan sin legi ay a mix hissa nda amini eɗu ɓuɓci tikci ɓuɓci fiɗa ngane ɓe sos kurcem ɓe camca lagi wem tamit wonamu yoɓ gan wallu sak suk ken fu sak sukeɗa wo yoɓu fu woyne ka addiw ay sos kurki ine mo yoɓu mais wayte dal ini ɗanga hane a samere ɓen woyne ka raƴ kurci ɓe ɗanga hane tik cinca cami casami min toksu camandana kurkina wose sas wem wo tikki dik kiɗiɗina wiɓona we kad hak léegi raaki kurki fi nangaane o teku ñaaxaar ñaaxaar we ɓiski fi nangaane wara i paangi
ñaaba wala di ñaaba wara i ñaaɓa wara i ñaaɓa léegi kurki ne o se ɗuuɗaam ɗuuɗaam on on on on on on jam avalé waaw Do- wa- on wanamo.
ɓay ina fa ona waaw in tem dal ceet kurci fi ɗanga haane donc ɓo ɓo mini woy in ci ca tokis so in english eh, so the question was related to sin sin the, the ɗuuɗi ɗu amini ɗuuɗam aussi amini firi google on firi wonna min firi google no ok ɗuɗam ol ɗuɗam tamit wonami min tokis google ining google ah, ɗuuɗam.
ining Mm.
aha, ining so what you, he was saying soon we about can translate the article English to that later.
Yeah.
We, I want to focus on the Syri- the what we call the Safi and the Wolof. We can add the article English part later.
Yeah.
Um, so that article we can give uh, Professor Chaus a break.
Yeah.
yeah. Um, my probably my last my large my last, last question mooy lii um, before you um, you play machine bi jàng doon wax about rampa xam nga amuñ ko woon si machine bi machine buy bu before ñu lixin ko defar waaw ko.
nga wax bi bi si machine bu waaw mu ne enregistré wuñu ko fini o ɓay o ɓaydi woni ɓo Waaw, aresreydi o wi fa wen rampa waaw we rampa waaw waaw waaw um, lifin naka am yow yaa ngi doon wax ne Mhm.
rampa si si parti séeréer sin um, tekki waaw rampa Sëñ Mbaye.
pas façon ngu suub la Euh, jigéen yi ñoo doon defar sër ñoo doon suub suub bu ne am na turam Euh, suub bu ne am na turam Euh, waaye foog naa mu ganale sama rakk ji am na lu mu fi defar fii ma seet ko léegi ma ñu ko gisee wan lan loo xam nga domaine recherche loo xam nga loo xam nga ne xaw ma nga dem seeti aha ndax euh, bu ma la waxee dara loo xam ne waaw ëllëg nga dem def ko xam-xam nettali ko keneen man na la weddi waaw ah euh, attends sama rakk yi defoon na ci liggéey mais am na fu ma ko dajale nag mais dafa lu gije yër am na foo xam ne bi fi dimle ñëwee waaw maag dimle ak dem nañ ba foo ñu seet yëpp wax cuub yi lan bu ci ne nan la dugg mais kook nag vraiment gis naa ko lii
mën ngaa wax lan la lan lañ ko doon lan la lan lan laa doon laaj ci professeur Thiaw mën nga ko interpréter si baati safi about rampa so ini amik sohe sinci wara sohna ini safi safi waya ram, rampa rampa Rampa wa.
wa woni ce caniki in cefiɗan kane ca façon fiso ha cefiɗan kane wa rampol lan lan sabling da fi ni ngi henga da wa façon suub wa bo façon cuup wifiɗan kane Mina we wa wa me habe rampa me we fok ngung hoda kong ini so ini ini bahap do hawa.
Waaw ini amik saya sinci war soh nga na ini na wai saya rampa rampa wo fai professeur isa wone wo façon chup fina nga hane sa afi ci medo na habi ko chana euh pour ba mo sine in ci fina nga hane ceba ceba bi ceba bekkan donc ini be ini fina nga hane amik so heda legi legi bo sek ini ay bo tontan
Eh mbata. Wa ma mbata mbata tap. Eh mu njo njor ndigo njor tap tap eh, kum tap kum. Ala cem je façon gene to ndax eh rampo na wa bah nga me rampo haydi de joy dal la ci ci ba. Euh, am na fu ma ko def enquête nag mu maag dim la ñoo àndoon dem dëkk ma alors mii mooy façon couleur yi nga xam ne Waaw.
mooy bu jigéen yi doon defar suuf na ba pare dégg naa si am si marqué am nak saay sim saay symbole yi njëkk def si marqué si nak nag waaw ah waaw waaw comme dafa yaatu ñàkkul am na ñoo xam doon nañ ko def mais am euh, doon nañ ci def nag ndax ñàkkul mais comme maa ngi doon affaire nag sax maa ngi doon préparé benn texte bu ma la waroon yónni Euh, ci nag mooy dañu waxoon ne ci jant bi nag da ciy feeñ ak nag nuñ ko wax jantate naa naange naaj nag xam ne yooyu dañu jege Euh, ça fait ino ino la chose qui appartient au soleil ino ino la chose qui appartient au soleil alors comme euh, dañu gamoon ne euh, ci soleil boobu euh, ci jant bi dafa am nag bu fi ne et foog na am na fu mu daje croyance égyptienne yu jëkk ya euh, do doon wax loolu am na lu ma ci teg dajale naa ci yu bari yoo xam ne dama noonu dama koy bind def ko teg sa yónnee la ko Euh, le, le soleil dans le concert des serrés Ah, le soleil dans le concert serré et le jour waaw exactement.
kon bon loolu mën na da lu xam ne lu lu war a ñu ko ni mu jën jëriñoo la daal waaw waaw aha, Ñu aha.
jëriñoo.
Euh, xam nga le religion ré- révélée day ñëw ñu wax ne nit ñi dañuy jaamu na- naaj bi dañuy jaam mais non jaamuñ ko c'est c'est le, c'est le symbole de la divinité mais c'est pas Dieu lui-même alors dans ce cas là il y a beaucoup de prières sœurs yoo xam ne dodo fekkee ne yow xëy nga deel nga wax ko joxañ ci raaj bi de dara du la dal keroog ba mu kooku nga xëy nga def la nga ne nga xëy wax ko wax prière yooyu nga joxoon ci jant wi waaw Eh, léegi ba bëccëgu keroog doo am accident doo am dara waaw da nga dem di delluwaat bi ah waaw waaw ah waaw ah alors yu mel noonu dajale naa ci yu bari ma ne dama ne dama ko bëggoon bind sa texte article ma yónnee la ko nga def ko internet Waaw.
waaw soo def ma ko waaw waaw loolu Eh.
loolu Aha.
ñu- ñu bari bëgg nañu xam Ah, ah.
wante xamuñ aha waaw waaw aha amul kenn xamalu leen ñu aha ñu- boo boo defee inter ñi lay déglu bari nañu Waaw.
ñu lay seetaan waaw yes ah rajo rajo suñu rajo bi.
en en même temps rajo bi am na internet rajo ah léegi quoi te africain yi dañ koy déglu waaw xam nga ko déggoo wol dama pare dans le player si yëfin Ah.
am na internet fii nii Ah.
internet radio foo nekk si àdduna mu ngi koo dégg si radio mu ngi koy déglu.
ñu ngi koo Ah, launch bien.
in January ah ah waaw c'est bien waaw bu ma amee feex fan yi laa dinaa ko def yónnee la ko waaw ah
waaw ah kon nag yow la dëgg yëfin man bëgg ngaa defin doon la nga am na li man jeexal naa si ñu ma bi ngay laaj la bëgg a laaj waaw il faut que da ngeen di may ñu dem ba ci docteur.
Waaw.
présenté leen ko.
waaw Euh, dañ jël oto dem foofu rek présenté leen ko.
waaw Mhm. kii des couches contrôle. def am naa ci texte.
aha des couches contrôle ku mel. am naa ci texte waaw boo xam ne ay yu am am solo. wax nan lay doon jëflante nit ñi luy doon kër nu mu oto. des couches contrôle. sama benn doom eh, mag laa waxoon mu dessiné ma li. wan symbolisé ko. Mhm.
waaw jërëjëf waay onkul waaw jërëjëf waaw.
ma ne ko jërëjëf waay Ah, jërëjëf, waaw.
ñu ngi jàng nga fi yàgg yal na la fi Amiin, yàlla amiin, yàggal amiin, amiin.
mais li ñu woo da nga da nga da nga nekk ku baax koo xam ne li fi nekk li ngaa li ngaa wan nit ñi ñu bari yi fi nekk fàtte nañ ko amatu nañ ko fàtte nañ ko.
amatu ko ba pare yow defini loo selfie aussi da nga da nga bëgg nit ñi xam dicté dafa dafa nekk sa xol loolu gis naa ko sa lifi so maa ngi lay gërëm waaw jërëjëf waay waaw xam nga man professeur arabe la waaw ku jàng arabe ñu ne wuy ni arabe la bu ko jege woon mais yooyu yëpp dama ko tëbb fële waaw waaw pour Afrique dañu war a xam seen bopp africain bu ñu xamul seen bopp rek dañ leen di réeral rawatina arabe yi ak tubaab yi ñoo ci yem ñëpp ay colonisateur la il faut suñu xam-xam cosaan bu gën a xoot ñu xam ko bind ko siiwal ko ñoom ñu xam ne ñun fekk ñu ñu ay vierge rek ay ignorant dañu fekk ñu rek suñu xam-xam alors loolu moo tax ba man dama muñ lépp honneur yëpp privilège àddina yëpp dama ko muñ pour jublu ci lii rek Eh, dem wari yoo xam ne sa rek garde bu ma gisee ku mel ni yow waxal la yëpp nga man cee man ko ndax man nga àgg foo xam manuma fa àgg man nga jote foo xam manuma fa jote bon nag wax leen ko moo gën nga denc ko nii ba nga dee bàyyi ko fi non en Afrique chaque fois qu'un vieillard vieillard- vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle Quoi, il faut euh, transmettre euh, les messages, donner des informations pour mu nit ñi yëpp gan surtout yéen ñi nekk euh, Europe euh, lu ñu war a def war nañ leen ko def ngeen mën a xam mën a dépendre sama bopp te tubaab yi ils sont pas toujours méchants y a des bons tubaab yi naa ba waari ki yox bu bëgg nañ dëgg boo waxee dëgg ñu gam ko ànd ci yow Euh, boo demee université euh, européenne yow da ngay tubaab yoo xam ñoo gën a bëgg a cosaan nit ku ñu sax nit ku ñuul am na même en fait am nañu raciste am nañu ko bëgg te raciste la ko indooleen yëpp mooy ba ñu leen jàngalee ne biibal rek mooy dëgg leneen lu du biibal dëgg fen la boobu la tubaab raciste woon waaye ba mu demee xam ne biibal bii la mu wax gamatuñ ko fu ñu gisee xam-xam ñu jël waaw moo tax ñu war a góorgóorlu collaborer ak yéen xam-xam bi tosaaro dama bëgg nga translate tamit lu is pour professeur wax nii si banque saafe yi fi ñu bokk saafe yi ngay def waaw tam tamsir moo njëkk a wax tamsir ay koc wo léegi a corkiɗeɗo professeur thiaw seki a a sek ɓo innano hoppoy ɓo bofdi ɓo mixeɗe te inna ɓo mixeɗa a tayi ɗinga guep a toon tusa ɓo tifiɗa ngana cewarga léegi tamsir ayno corkiɗeɗen inem e yinnamɗi kimit ko ko faɗɗen fiki ɓo popa fiki suko defe inna ina ngana ɓore min mbawa gaɗaɗa ɓoye ɓo koɗo ha gaɗa léegi professeur thiaw aynanameɗe aynanameɗe dokken wooki ana mbaɗa corkin kottif ina ngana ayi tindeɗa caggan yini ina ngana waɗa sohna séréer cen léegi ɗoy kottim ayi hama ayi teɓɗene koye ɓe mi fina ngana ɓe nik ɗingdi ɓeɗan ɗaf ka ɓe ini fina ngana ɓe minɗi o ɓe wi o oppiyo mo gaɓa pour que ɓe pour ne que ɓe ɓa ɓa haaɓiɗa ɓe ta inna ina ngana ɓe ɓe in hiɗaɗa ɓa ambiɗaɗa ɓa hay woye ɓa hay woye ɓiman tamsiri o soko defe ɓe kaɗna waɗa hayna ɓe min hoto ɓoye ina ngana e amɓe nga soko defe ɗiska ina ini rasohna séréer worreɗa worrenga te tamit ayi anami anami aname wone aname ña ɓoɓ cifiɗa ngane ɓe ɓe ɓo suusus par ce que a topiɗi won séréer rek ɓoɓ cifiɗa haalɓe ɓe africain ɓe jenna ɓe ɓe ɓe tufuk ɓe inane que woyrit ɓe te ɓo haɓet ɓinde woyrit ɓe te ɓo ciyanaw cinne que ɓe bala ay dine cina hay dine cina Ala, ala, i- i- ko- rak ɓe ini ko rak ɓe ini in cin tuuli man wala ini ina nga haare tamit wa wa riit pour nekk ɓen ɓe te ɓo inen pour ɓo surtout ina ne que africain rak rak arak rak tiking di arak rak incing di idang ane ayo dong ayo ayo dong ayo rak ca ayo aban duk di cangbo ah ini em dalwe profesor eh, tayo ayo na apre raki ayo mixoh ci tassa waye rak rak disk idang ane bo work anga ah boy diskana doctor sis parce que projet ni raki solo fi nang rak bu ci fi nang ane hay nang internet yu ba jotti da ba jotti da li ba jotti da marak temple of initiated woman en anglais ɓe ɗiskif ina nga hane inni nanga hane wo wallu adana cosan safiɗa waɗ nan ɗo ndem lagi ngan projet nem ɓoyi fiɗa ngana ay ɓo worka waxtananade ayna professeur I- isa ɓeɗna ɓeɗna pank pankanga tirku se docteur dion ay ɓo worka ɗiskanade wetta waxtana wo wormin up nem ndi mais ɓuna way gude po mbeha wirista corga
jërëjëf waay jërëjëf maa ngi lay sant bu jërëjëf baax.
maa ngi lay gërëm bu sant de bu baax a baax baax ndax eh, lii koy def moo mën a tax nit ñi yëgal seen bopp nit dañ dem xeeb seen bopp xeeb bañ seen bopp ndax rek ana arab bi naa ne eh, tubaab bi nee nag yooyu mais loolu il faut que ñu dépensé ko nañu wane li ñu am bu ñu wanee rek kenn duñu mën a tax kenn duñu xeeb kenn duñu xeeb loolu dëgg la kon nag jërëjëf oncle Jërëjëf, aha.
waaye di ma laaj ma lifin li ma la bëgg a ñaan mooy lifin ndax comme que am nañu séeréer réew jëf mu nekk nii Aha.
dama bëgg nga wax ne yéen a ngi déglu sé man man man la professeur Issa Laye Thiaw yéen a ngi déglu séeréer radio si internet bi dama bëgg nga wax ko si baati wolof Aha.
wax ko si baati saafi ak Saafi.
si si séeréer si Ɓe ɗo satti Uh, sirri.
bobkaji uh, ɗum enen sigid ke jenmi corki ɗum kanje ɗum e tamsir juuf ɓay hayndi woti anni ka ɓo waaɗi cosan safi anni ka ɓoy inane waaɗi heetinde lool a mekso heeso ngan ini kat ngan saafi na ham ham saafi na cosan saafi ngan inem nan begi ngal lool ngone a fune mekso heeɗa innuɓo ina haɗan adenela a jomi ɗawate dawani ke ina nane fune habdiɓe ɓe habdiɓe ɓe jenwa fune habdiɗe ɓe jenwa e kina fune habdiɗe ɓe jenwe habdiɗe happu rek kono gan inem wo joomi tahpo iniɗa mexo poɗa ɗakkawa da sanga ɗak poɗa kan kimɗawa faɗu wo yaklugo da eɗa tafsir wa ne ɓo numanna tafsir sohla wara po wo min siw gan adinani jen Euh, euh, euh, mi hay guidma noon fogole Pokoknya mai git manu santa nun pa. Eh le nun eh tamsir yu pagaran mega. Alam tam chosan sere. E chosan a jega ken an ma bo mayu me ka go hum ge kangan hana ya ko te leng jirin ko ne jirin no rekan. Den tah bo e tafsira garanga chohen ke ando ko hum ke ando ne jiganum ne andanum ne chosan. Lal no tin chohen no ten dah fet win be fop waga jirin horten. ndax kat eh, wiin baal ka yapel me to refna o kiin o kiin ka waro gorgorlo a saka a lamta cosanum ba andin ananga adinan fop wagan andin o feet han winana wiin baal rek refe rek eh, eh, ko hona hande dara mais roga ciɗane xam xam xam xam kaga nak ka in wara lalaltino mbokk yi ma- maa ngi toog ak suma mbokk suma xarit eh, Tamsir Diouf eh, mu nekk koo xam ne ko bëgg cosaan ku fonk cosaan jaral ko jóge Londres ba fii di ko laaj Eh, ba mu fi ñëw mu ànd ak Demba Sène di ma laaj ma bég ci lool kontaan ci ndax li ñu ma laaj dama ca yàgg sonn lool léegi li mat ñi ëpp ñeen fukki at maa ngi war di laaj même démb rek maa ngi jóge ci benn village boo xam ne ñu ngi ma ci jox ay ay xam-xam yu am solo yooyu xam-xam yëpp buñ ko dencee du ñu me du ma ci jëriñu keneen du ci jëriñu bu ñu gisee ku mel ni Tamsir mën na ko jëriñoo ci télé orde internet ak beneen kooku dañ ko koy jox yu xol bu sedd ndax yéen doomi nit ku ñuul yi ne ci bitim réew ñi ne Angleterre ñi ne ah, ñi ne Amérique ñi nekk euh, France ñi nekk euh, Hollande ñu nekk fu ne ngeen mën a jël xam-xam boobu di ko jëriñoo maa ngi leen wax ne nañu fonk suñu bopp nañu fonk suñu cosaan nañu gestu suñu cosaan buñ ko ñàkkee ñàkk nañ lépp bu ñu xamee suñu cosaan nag ñu xam suñu bopp ñeneen yëg ñu ñeneen fonk ñu nit ku fonkul boppam kenn du la fonk nit ku fonkul bopp kenn du la te te nit ku ñuul moo jëkk xam-xam ñu xeex ko euh, gàddaayal ko sonnal ko jàpp ko def jaam yeew ko jaay ko def lu ne ba xam-xam ba mu yoroon mu rëcc ko wala di ko bëgg a rëcc bon nag léegi ñii nga xam ne euh, société secrète société traditionnelle ñoo yore lel ñoo yore xam-xam boobu bon nag ñu góorgóorlu nun ñépp ñu def pexe ba ñu mën a am kër goo xam ne lépp loo xam ne xam-xamu nit ku ñuul la dinañ ko fi denc ku nit ku ñuul soxlaa xam-xam lu mu laaj ñu wan ko ko euh, loolu euh, góorgóorlu rek ak jom rek moo dox ku bañ ñu yab la nag da ngay góorgóorlu def da ngay góorgóorlu wax da ngay góorgóorlu dox comme ni Tamsir di def kon nag maa ngi leen jërëjëfal euh, jaa ngeen jëf salaamaaleykum.
jërëjëf oncle jërëjëf
waaw.
dam yo sereer radio dam han ico hanuna kima mayu na sereer fo jetai la jeg no solo no ka hotna no ada fa cosan sereer ndet yo no mbinne in refna 3w sereer radio point com pare yo pour nangilo programme ke in no radio sénégambian sereer radio fena yara nun to a jalnora nun genat am sereer radio ɗafi haydu kome tabtiɗo peɗemtiɗo mosli kehro longsohraki eto intirɗa sohna wasko saafi na fase saafi na aada saafin manje asat ɗum marak fahinɗa fi ngan www point sereer radio point com te ɗum sek haɓɗa cin radio sénégambia wi fu inahne wa jangɗo he te woƴenɗo he Restez branchés sur Serer Radio. Nous vous offrons un mélange de musique serrère, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serrère, l'histoire serrère et la culture.
Visitez notre site internet au www.sereradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Série Radio pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of Serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community.
aye jogoy nanum tiiɗa aye jogoy nanum dida mi aye jogoy nanum tiiɗa aye jogoy nanum dida tatagina ngenoxe isa salingolo xum commune ne to yakari aye jogoy nanum tiiɗa Vous avez demandé de la musique Serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique Serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire Serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio pour vous éduquer et vous divertir.